Bienvenue sur Salam Vision. Yaram na la ilaha illallah. La ilaha illallah. Amori ja la ilaha illallah. Ni bala la ñaan yermane faal. Keroog doole faal fan jafe.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 falilo fu sa ne xam nga ko aboori jaal fu sa ne xam nga ko aboori jaal fu sa ne xam nga ko omi Mbàkke falilo jàmbaar ja fu sa ne xam nga ko ma jàmbaar ja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 jam-jam bu déggoo day seera fa abori jaal ba yaa nu ummi Mbàkke Falliloo jàmbaar ja la ilaha may ni baax soli leer ba mu feeñ ci bite Cheikh ummi Mbàkke yaay Falliloo may ni baax sonni leer ba mu feeñ ci bite Cheikh Oumy Mbacké Fallilo yaa mu moom kaa yilif noo fu nga jëme noo aboori jaal ba aboori jaal ba lamp koy woo aboori jaar ba lamb lañ koy wooy aboori jaar ba lamb lañ koy aboori jaar ba teel naa jàng alxuraan mokkal tafsir ko biir ak bitu yàlla may ko muy jàng ak a jàngale di taalif balaa nga xam-xam yëpp nekk aarif. salaamaaleykum mbokki Sénégal salaamaaleykum mbokki àdduna sëñ Touba Seye Ibra tey jii ñu ngi ci bisub tey bi nga xamante ni mooy bisub vendredi tey ñu nekk diggante Pikine ak Guédiawaye tey ji bu ñu nee Pikine ak diggante yoonu Cité Baraak bi la. tey ñu nekk suñu yaay boo yoo xamante ni tey dañoo jël seen bopp tey jëbal ko maam Cheikh Ibrahima jël seen bopp tey jëbal ko si Ahmadou Bamba di waajal seen màggal tubaa gi tey bisub vendredi tey. ñu ciy sargal ki nga xamante ni mooy Serigne Touba ngir lan 18 safar tey yi ñoom ñu organiser tey seen safar bu mag tey fi nga xamante ni mooy biir Géejawaay diggante Géejawaay ak Pikine ci fi nga xam ne mooy Cité Brac dama koy bàyyi mu nuyoo sama yaay maa ngi lay nuyu. la sant la sa tagal di la jox sa wàcc di la sant di la gërëm bu baax a baax naan waaw tey de moom waa Cité Brac di waa Aynoumane ñoo xewle. waaw safar bi nag bañ ko commencé ñu ko doon commencé ci ataaya joxe ataaya joxe café joxe mburu ba yàlla def Serigne Touba def tey ñu dem a dem a dem a dem tey bay togg ay mbana jigéen ñaa ngi nii si ginnaaw macha allah waaw wax dëgg yàlla ñu ngi koy rafetlu kontaan nañu bu baax a baax baax di ñaan yàlla yàlla may ñu gudd fan ak wër bañ koy teewe at yu bëree bëree bëree bëri yàlla may ñu gudd fan ak wër ba ñuy daaneel nag ak i gileem i xar ci kattanu suñu ma si yoonu Serigne Touba bi moom jar na ko ndax ñun ay taalibe Serigne Touba lañu ñun ñoo fi nekk taaliba sëriñ Fallou taaliba taaliba sëriñ Touba ay Baye Fall kese fi nekk waa di tarbiyu nag. kon yéen ko tàmbalee ci wàllum ataaya tey jii ngeen dem ba tey jii defar ay ndékki defar ay añ fas yéene defaraat reer ngir waajalaat guddi gi tey jii boo xoolee seen première safar ba ngeen ko doon waaj ngeen njëkkee ko ci ataaya tey maanaam gëm-gëm gi ngeen ci amoon ba tax tey jii seen doole ji tey toll fii ban yëg-yëg tey ba maanaam boo demee ba fàttaliku bis bi rek maanaam yëg bi ngay am quoi ci Seera Fall ak Serigne Touba kontaan rek parce que nga ton commencé ci ataaya dem ci kafe de ba tey ngay jënd say ginaar ñaan nañu yàlla bu déwénee incha allah ci kattanu suñu borom bi ñu am nag wala xar rey yëg-yëg bi ma am tey sama kontaan damaa kontaan trop macha allah di ñaan yàlla nag ñu ko commencé ko ci bisimilah eggale ko ci alhamdulilah bu ñu paree fii nag ilaa Touba la ñu wax. il faut ñu dem nag màggali nag dañ koy yeggal waaw dañ koy yeggali ji nag il faut ñu yeggali ko ci sëriñ Touba xam nga taalu bi sëñ Fallou jàkkaale di wax ak yow waaw Mbacke Balaye sax ñu tey ji bisu vendredi bu ñu ba ñëw ñu yëkkati berndeel bi dem berndeel doomu aadama ñu te na réussir nañ kon alhamdulilahi rabi alamina ñu ngi sant yàlla bu baax a baax kon daal tey daal moom li des tey jaa diggante bëccëg gi des na daal waaw guddi des na guddi gi ndax bernde ñëw togg reer des na reer yi nit ñëw ba jànkatu xasaa waa Aylouman eh. allah ba léegi nag question ba léegi euh, dañ koy yemale foofu parce que am na ñeneen ñoo dañu làqatu jël parce que am na ñoo moom xam naa nag moom pour fen ci télé wala fen ci écran moom dañ koy def waaye maa leen di loqati jël parce que ñun miin nañ fekk ñoom commencement la rek nii xam nga doo xamagum yoon waaye boo ñu jàppalee ci kàttanu suñu borom dina baax te yow tamit da ngaa ki ñaan yal la yàlla may gudd fan ci koñ bi nga nekk yàgg ñu laa xam te dañoo xewle nga ñëw te ni nga ñu xewlee nga ñëw bu déwénee incha allah ci kàttanu suñu borom yal ko doxalaate ni incha allah kañ bañ a manqué ci kàttanu suñu borom bi kontaan ci yow bu baax baax jërëjëf alhamdulilah merci dem na ba jeexal xam-xam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 maanaam Cité Brac dafa nekk ci biir mooy diggante Cité euh, Brac ak Aynou Man ba léegi ñu ngi ci reportage yi ba léegi suñu yaay booy moom lañ taxawal nii dañ koy bàyyi mu ne yaay ñu ngi lay nuyu. asalaamaaleykum man maa ngi tudd Soxna Faati waaye ñun moom Serigne Saliou rek moo ñu doy Serigne Saliou Mbacke moo ñu dor ak Serigne Touba borom màggal gi ñun chaque année dañuy def suñ safar bañ ko yàggee def. ci ndékki lañ commencé woon léegi nag dem nañ léegi ba tàbbi ko ci ay añ. ay reer ak ndékki nga xam ne te kon ñu léegi kon ñun am nañ yokkute am nañ yokkute te li ñuy def nii yëpp bas moo ñu dooleel ak Cheikh Mbacke ak Thierno Mbaye ak lamin Saw ak Maxa Ndiaye ñoom ñooñu ñooñu dooleel dañ leen di sant nag ñuy sant kontaan nañ ndax ñunte te chaque année rek Serigne Touba yokkuñu ba ñu am de luñ safare ñii di ñii di dugg fu ne lépp rek sëriñ Touba da jaral nañu ko sëñ Touba jaral nañu lu ne man nag moom taalibe sëñ Saliou laa man bañ naa ko ba sama doom sëñ Saliou laa ko tudd jërëjëfati sëriñ Saliou Mbacke jërëjëfati sëriñ Saliou sëriñ Saliou da man ci moom lañ jébbalu mooy suñu sëriñ man man mi sama taaw sax sëñ Saliou laa ko tudd. macha allah kon maanaam yow kon maanaam yow da ngaa ci biir mais am na lu ndaw léegi li ma la bëgg a laaj tuuti lan moo tey ñu bari du ko ci yeneen suuf yéen tey ngeen tàmm ko tey ci bisub ajuma ji tey ñun biñ ko daree def ba tey vendredi da lañ koy def chaque année vendredi de lañ koy def waa ndax xam nga ne sëñ Bamba dafa bëggoon àjjuma chaque vendredi ci sëñ Bamba di daa bëggoon vendredi moo tax ñun ñu jàpp ko sëñ Bamba ñu jàpp ko chaque vendredi. ñu ngi lay jaajëfal. waaw jërëjëf. di gën a kontaan ci yéen. waaw jërëjëfati Serigne Saliou. macha allah ñu ne jërëjëf Serigne Saliou dégg ngeen ko ñoom jërëjëf Serigne Saliou kon nag sama gars yi tey lii lañ leen indil fi nga xamante ni mooy Aïnou Mane ak Siteu Brac ci diggante Pikine ak tey ñu ñu ci biir digg bi maanaam heure añ bi la mais des na tamit guddi gi li ci kanam raw ci lépp fi lay feeñee sama gars yi ba ci kanam incha allah rabbi léegi léegi incha allah. babil jannate ummi Mbàkke Fàllilu awa kaada i layal ku rendi sandarma te man nga noo layal ba Yàlla fallu te mul keek malakoon ngay fanaani di majjal ci malaaka yi jàbbaroo war ko sa di sabbal ummi Mbàkke Fàllilu jàmbaar ja awa kaada i layal ku rendi sandarma te man nga ba yàlla fal noo ca mun keeg ma la ko hoon ngay fanaani di ma jàll ci malaaka yi war ko sax di sa baa baabu laay baabil jannate fa baabu laay baabil jannate ummi Mbàkke Fallilu awa kaada i layal kureen di sandarma te man nga noo layal ba Yàlla fallu ce mulke malakoon ngay fanaani di majjal ci malaaka yi jàbbaroo ko depuis soo ba léegi ñu ngi fi woon fi mooy fan fi mooy Pikine bu ñëwee Pikine ne Pikine ay lu maan Géejawaay ay lu maan ci diggante Pikine ak Géejawaay la bokk tey fi ñu nekk tey mooy Cité Brac Cité Brac ak ay lu daanaka benn la waa ay maan gëm sa bopp soo ba léegi ñu ngi doon def seen li nga xamante ni mooy seen safar tey jii nag euh, mu tombeek bisub àjjuma euh, ñu nekk seen euh, troisième édition bi nga xamante ni mooy seen safar si nga xamante ni moom lañ doon wàcc chaque année tey jii nag mu nekk seen cinquième édition lañ waxuma seen troisième édition waaye nag comme que instant yi ne dibiso ba léegi boobu ba léegi affaire jeex na ngoon gi moo des instant yi nag dañ leen koy taataanal war leen image ngoon gi jëlee leen ci ay quelques reportages ngir xamal leen carrément li nga xamante ni moom moo fi am tey fi nga xamante mooy Pikine Elimane ñi nga xamante ni mooy Elimane wax ne jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba wax leen jaajëfe borom jaare jërëjëf Serigne Touba jaajëfe ci umi Mbàkke faliloo sa jàmbaar ja wax bu doon xaalis noppi doon wurus ndax balla danaan mes te xamul fu muy dal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 fi kenn jàngu fi wa man xaal wa man amina rek ngay dégg yow jaam yàkkamti du yofu nit caali gor xaddi du yofu jullit lu waay doon ko donte say mbir di xaddi ku yàgg ci deen ba baax fekk la ca nangul ku la mag nangul ku la raw nangul ku la ëpp wërsëg nangul ku la gën a nangul ku la bañ li yëpp du la lor du la wàññi dara bul nangu ku la xee bul nangu ku la doyadal bul nangu ku la ñàkkal fayda li yëpp li la koy may mooy sàmm sa diine sàmm sa ngor sàmm sa diggante ak sa borom ku la boole bu mu xam sa bëggee gannaaw comme ni leen ko waxee boobu ba léegi yéen ko gis noonu soo ba léegi yéen a ngi noonu di ñu suivre ci li nga xamante ni mooy li nga xam ne moo fi am tay ci biir li nga xamante mooy mooy aylu man gëm sa bopp tey jii suñu yaay booyee tey ñoom ñoo defoon li nga xam ne tey mooy safar si dama koy bàyyi mu nuyoo sama yaay ñu ngi lay ah, ñoo ngi lay sant safar si nag moom bañ koy commencé yàgg na danoo toog si buntu kër gi ndax koñ bi mooy ànd déggoo ak bëgg sa jëkkër xale yi yaru bëgg seen jëkkër ba xamu amuñu daray caaxaan liggéey nag daan seen doole lam xam am nag fun ma teg ma nekk seen tante ñu am fun ma teg yaru baax ñu toog si buntu kër gi programme ko rek. def ko rek sëñ Touba xam nga sëñ Touba tànk ginnaaw la am amul tànk kanam day yëfam daa yaatu moom ay mbiram moom ginnaaw rek la jëm daa boot ñëpp léegi ñu def ko boobu ba léegi nag bàyyi wuñ heure buñ ko kiyee day gën a yokk te dañoo bëgg mu gën a yokkale ba ñu rey ay nag loolu lan ñaan yàlla ak yeneen tibet sëñ Touba ak weeram mu màgg wi. tey jii jii ñu ngi waaj a jëm Touba si kàttanu suñu borom tey ji bisub tey ji ngeen def ci tey ji lu ala daw mi mooy maanaam dëgg na defar tey ndékki defar añ defar reer te ñu bari dañuy xool safar ñoom bu ñu ko doon def maanaam bu ñu xasee ba defar añ reer rek lañ ci teg mais ndékki sax daawuñ ko farataal tey yéen ngeen organiser loolu tey jël ay ndaw yu bari teg leen fii ndugg ndugg doy def fi ndékki def fi añ def fi reer maanaam tolluwaay bi ak yëg-yëg bi ngeen am ba tax ngeen def loolu tolluwaay bi fan la leen tolloon moment boobu tolluwaay tolluwaay bi fi mu ñu sëñ Tuubaa rek la ñuy bëggee moom la ñuy wër moom la ñuy nooyee suba ba ngoon jot def na ndékki mburu ak café ak ñépp le ñu def ay añ defaat reer léegi weer misala ki ginaar kon nag dara jeexu fi te lépp nag ci sëñ Tuubaa rekk ci sëñ Tuubaa rek lañ ko teg bëgg sëñ Tuubaa bëgg ñëpp xale yi xale yu baax yaru bëgg ñëpp te sa ñoom ñoom ñoom ñëpp bàyyi sëñ Tuubaa lan te sëñ dañuy ñaan sëñ Touba may leen kàttan koo xam at mu jot di ko def toog fii bay rey ay nag leen bëgg. fàttali ñu tur bi. la jéem. waaw borom nag ak meew yi. borom nag ak meew waaw moo taxit moo taxit daal bisu tey daal wane waaw man maay seen yaayi law bi dañ koo wone luñ def boole ma sax ñu xam jox ma lu fu ñu xam yóbbu ma waaw. kon baax nañu dara jeex fi waaw jërëjëf. alhamdulilah yéen a ko gis noonu sopp la jéem wax na loolu noonu nag la ca des mooy damay jëlwaat keneen indiwaat leneen tey jii dara du sedd tey biir ay lu maan gëm sa bopp tey incha allahu rabbi tey fi la lépp di leeral. bu mu xam loo ragal ku la yab bu mu xam sa mën a kaf bañ la man la yab la nit ku baax ku ne war na koo bañ. bu sa bor jeexee dootoo jëmu dara bu sa xol yàqoo dootoo am xalaat bu rafet ci dem. ba léegi rek ci wàccaayu bis bi ci wàccaayu guddi gi boobu ba léegi parce que suba ba léegi yéen a ñuy am kii nag suñu yàlla dañ koy bàyyi mu présenté yaay ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay. maa maa ngi am jàmm. fàttali ñu tur bi ñi lay seetaan. man day jaay laa tudd. tey bisub tey jii ngeen ngeen def ci lu rëy mu tombeeg bisub ajuma tey ngeen def safar maanaam ba ngeen ko dalee tàmbaleeg léegi tey ba yëgee ngeen jàpp. Ah, bu baax rek comme yoonu moom tànku kanam rek la am amul tànku gannaaw ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaan ah, yi nga xam ne ñoo ko organisé. ah ñu yàgg ko di def rek te yàlla boole seeni xol waaw yàlla doggalu leen yàlla dox seen digg ak seytaane ba luñ man ren ñu mën déwén lu ko ëpp barke seen ab ba toog ba seeni doom di ko def waaw. Elimane tey gëm sa bopp tey jii ñu xool ni tey quartier yu bari meluñu nii. mooy maanaam dañuy gis ay xale rek ñooy ñooy def ay safar ñeen duñu def ay safar mais boo xoolee gisuma fi xale ay magam jëmm laa fi gis ay borom kër laa fi gis ñoo xam ne ay responsable lañ tey ji ñoom ñëpp tey ñu nekk ay jigéen ak ay góor manko bokk association mooy maanaam bëgg sa jëkkër loolu mu nekk moo bu garaaw boo xamante ne jafe na ngir mu am ci koñ tey ji ñoom ñëpp tey ñu man ko tey ji nekk benn tey ji maanaam loolu nan la demee daal seen biir daal ba tax yéegeen ah dañoo am jom rek comme dañoo am jom rek fas yéene jàppante a ah nu ñuy def ne nañ ko góor nañ ko yàgg a def rek nañ lañ ko yàgg a def te ñu gëm seen bopp rek waaw comme dañu dañoo déggoo bëgg seen i jëkkër nañ ñaan yàlla rek ni ñuy wax ne noonu lañ bëgg seen jëkkër ñu ñaan yàlla rek di góor laxasaayu di sant yàlla di di gën a dëgëral euh, seen seen seen li ñu wax daal ñu gën koo dëgëral daal waaw ndax Sëriñ Tuubaa mii ñu tax ñuy def moom waajuram dafa gëmoon Maam Mor Anta ba tax tey lii Sëriñ Tuubaa am mu am ko waaw kon nag ni sa sa maam Jaara bu soo laxasaay woon ba tax ma Sëriñ Tuubaa am li mu am tey ñoom tam ñu fas yéenaa laxasaayu pour pour gëm seen bopp def lool nañ góorgóorlu rek ba ba ñu li ñu wax rek ñu saxal ko waaw mu buñ ko saxalee rek incha allah rabi yàlla dana leen jàppale ak yonante bi ak sëriñ Tuubaa. ñu ngi lay jaajëfal waaw ko jërëjëf yàlla ko yàgg def barke Seydina ko sallallahu alayhi wa sallam. ba léegi yéen ko dégg nag daanaka nag waxtu bi jot na dina am lu ndaw loo xam ne dañ koy tënk teewaat ak yéen ngeen ñuy gën a suivre bu baax a baax may leen ñu tuuti ñu am lu ñu def dikkaat teg leen foofu seen baaraam kon ba léegi ci taxawaay bi rek ba léegi ñi nag ñoom ñeneen ñoom ñooy groupe nopp sa jëkkër loolu nag xëy nag lu tax nag ñoom ñu créé ko loolu ñoom ñoo ko xam tey mu nekk bisub safar tey mu tombeek bisub ajuma ñoom ñu tànn bisub ajuma ji bara boobu dama koy bàyyi mu nuyoo yaay booy ñu ngi lay waaw maa ngi lay fay bu baax di rafetlu sa taxawaay bi macha allah kontaan nañu lool waaw ndax yéen a dëkk ak ñun yàgg ak ñun macha allah nga taxaw suñu bés bi waaw bu la neexoon nga ne jox leen ma temps waaye sa yitteeg sa lépp won na yaag ñun ak ak yow benn lañu ci biir koñ bi yàlla na yàlla yokk sa lépp ci barke Seydina Mohamed. tey jii ñu gis ne tey ji euh, te bisub ajuma la tey ji màgg gi li si des bëreetul tey jii ngeen taxawal bisub safar te ngeen tàmm ko tey si bisub ajuma bi lu ngeen xam la wala lu ngeen teetal la loo xam ne dañ leen cee teetal ba mu yegg si. waaw ñun nag bésu ajuma bi moom bii mooy cinq ans ñu koy def chaque jour vendredi lay tombee dañoo bëgg bu nit ñi jullit ba wàññeeku ñu kar leen jox leen ñu añ xéewlu waaw looloo tax ñu taamu bésu àjjuma ji nit ñi jaamu ji yàlla ci jumaa ji génn ñu jox leen añ bi loolu rek lañ ci taamu waaw tey ngeen tàmm lu yéeme mooy tey nee ngeen bisub ajuma bi ngeen ci tàmm mooy ñi nga xam ne buñ demee julli ji buñ tourné ngeen yëkkati balaa yu añu jox leen ko parce que am na ñoo xam ne tey jii mën nañoo génne seen kër am problème mu añ am problème leneen tey ngeen xalaat ci tey ji lu rafet loolu kon tey ji loolu dañ leen ci gën a encouragé tamit di leen wax ni àdduna nii rek la maanaam nit li nga gëm rek loolu ngay gëm waaye kenn du sëñ Tuubaa nag tant que sëñ Tuubaa moom amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la am comme maanaam loolu dañ leen ci gën a jaajëfal mais bu loolu weesoo tuuti dafa am ci lu ndaw lu ma bëgg a ñëw tuuti mooy maanaam ci biir safar si gis naa ni seen i borom kër yi dañ si dañ dañ leen see taxaw li tax ngeen tuddee seen bopp seen groupe bi groupe bu ndob sa jëkkër ah man loolu xaw na ma jaaxal tuuti quoi mais secret bi lan la. ah xanaa ñu bëgg suñu jëkkër yi rek ñu bëgg ñu rek jàppale ñu comprendre ñu ci lu ne nag billaahi wallaahi terewuñ ñu bàyyiwuñu dara lu ñu sumb ñu ànd ceeg ñoom ñoom ñëpp génne seen doole waaye nag kiñ ci jiital di ko ñaanal ñaanal nañ ñëpp waaye Cheikh Macké Ngom yal na yàlla guddal fanam ba moo ñu dooleel moo ñu taxaw moo tax ñu ñeme ak bas waaw suñu jëkkër yi nag mënuñoo lim ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal di ñaan yàlla dooli leen sutura may leen fan wu gudd ak wér ak wérle ci barke Seydina Mohamed Cheikh Mbacke ñu ngi koy ñaan dooleel nañu jàppale ñu yàlla na ko yàlla jàppale. man Mariama Sow laa tudd. Mariama Sow waaw sopp la jéen. waaw xanaa waa Cheikh Tidiane. xanaa xanaa waa groupe bi yëpp moom moom moom xanaa ay sopp la jéen la. na ñu lay jaajëfal waaw <laughs> leen di tooñ sax gis ngeen ko sopp la jéen yi ñoom ñoo fi des ah. ndeysaan ndeysaan ndeysaan waaw sëñ yaay dégg ngeen ko soo yaay nee na dafa am lu dafa am lu bëgg a yeggali ba ba léegi nag ci ci taxawaay bi waaw damay ñaanal uh, ñu kii Cheikh Mbacke Cheikh Mbacke moom gannaaw yàlla moom moo leen moo leen moo leen dëgëral kii Cheikh Mbacke muy Bas muy seeni jëkkër muy Jibi Njaay muy Cheikh Tidiane ñoom ñëpp waaye gannaaw yàlla nag Cheikh Mbacke liñ naa rawante ba gis am na am na roccum ñoom Seex Mbàkke nag moom wax dëgg yàlla mënuñu ko fay jabaram itam yàqu ci dara wax dëgg yàlla waaw lu ñu nekk ma nga ca waaw ñu ngi nekk man lañ koy ñaanal nag Seex Mbàkke lu xale yi sumb lu ñu amee doole rek moom moo tax gannaaw yàlla waaw dañ koy ñaanal nag gudd fana ak wér ñoom ñëpp seen jëkkër ñëpp ñu leen ñaanal yokk ba yëg ko ba lu ñu mel ren bu déyeen ñooy man lu ko ëpp parce que Seydina Muhammad sallallahu alayhi waaw ñu gën a la dëggal seen taxawaay te na mus lu saytaane waaw ndax àndu jigéen moom du ñàkk werante waaye nag na ñuy mustu seytaane dama leen ñaanal yàlla dox yàlla dox seen diggante ak seytaane ak dox ak seen njaboot barke seen naax ñu dund ba li ñuy ñu dund bay tëla fii ñu dund ba seen njaboot di ko def barke seen naaxam sallallahu alayhi wa sallam kontaan nañu jooyal ñu suma te la moo tax ngeen tàmm si la waaw xam nga bés bésu ajuma moom dafa nekk bés bu particulier euh, ci lislaam waaw ba pare nekk mën nañ ne tey mooy dernier vendredi ci mois de safar bi ñu nekk bokk na tamit ci li tax ñu taamu ko waaw mooy dernier jour dernier vendredi safar bi te dafa nekk tamit bés boo xam ne dafa particulier ci lislaam mooy jour vendredi tey jii yéen da ngeen a mànkoo yéen yéen jigéen ñëpp tey mànkoo nekk benn mànkoo nekk benn tey jii ngeen jël tey li nga xamante ni tey jii mooy lu jafe am tey ci koñ yéen ñëpp tey ngeen mànkoo nekk benn loolu tey dafa jafe ci biir kër dafa jafe tey ci koñ tey ñëpp tey ngeen mànkoo journée bi ma seetlu leen liggéey ngeen ba guddi jot te dégguñu ci laasa xiin wala laasa xiina secret bi lan la. waaw secret bi mooy mooy borom mooy bés bi rek li tax ñuy def waaw Serigne Bamba moom moo nekk loo xam ne dafa doy waar moom tamit nit ku particulier la waaw loolu moo war secret bi yëpp Serigne Bamba la bi mooy quatrième édition waaw ñu ngi koy def ça fait quatre ans musul am xiiro musul am ŋaayoo te comme ni nga ko waxee pour ma rejoindre la rek ku ne xam ne àndu jigéen jigéen même pas une heure de temps ku ne dina wane sa jikko mais macha allah ren mooy quatrième édition saa yi bu ñu ko defee dañuy gis ne affinité yi day gën a yokku bu ñu ko defee année bi da ngay seet beneen koñ bi sax année bi ci topp dañuy wàlli si day dem ba jur beneen beneen énergie boo xamante ne nii suñu biir duñu sax comprendre dañoo dem ba ci safar bi sax dañoo créer ay natt waaw ay natt ay affaire jàppalante yu bari te safar bii nii moom moo ko moom moo ko moom moo ko kii sooxee waaw. mais am na ambiance bu am fii ci waaw ambiance bi mënul ñàkk xam nga ñun ay murid lañu lu ñu xewle rek dañuy bégee. la mos gën garaaw. <laughs> Ah, waaw ñun moom dañoo garaaw xam nga ba pare ay muritu Pikine lañu yaa ma gën a xam loolu mënul ñàkk. ñu ngi lay jaajëfal. <laughs> waaw merci beaucoup alhamdulilah lay jaajëfal. merci alhamdulilah. wax leen jërëjëf Serigne Touba. léegi ba léegi yéen ko gis suñu yaay booy yi wax nañ kii tey suñu papa la tey ji nekk na ci borom kër goo xamante ne tey suñu benn yaay booy la boo xam ne mu ngi ci papa bara boobu dañ lay na nga waaw mm, sant yàlla bu baax a baax a baax sant yonent bi sallallahu sant comme ni ko mbër di waxee rek sant suñu ñaari waay sant suñu ñaari waay <laughs> sant Serigne Touba bu baax a baax a baax nag waaw du ko sant ndax euh, vraiment Serigne Touba moom daal moo waral lii yëpp daal waaw li gaañu naan moo waral coow li waaw ñu koy sant bu baax a baax a baax. tey jii ñu gis ne tey da ngeen a jàppale tey suñu yaay booyee tey ñu nekk tey seeni i soxna tey yéen ngeen nekk tey suñuy baay tey jii euh, ñoom li ñu organiser mooy chaque année neneen nañ ren mooy seen cinq ans chaque année ñu def 18 safar 18 safar bi tey ñoom ñu tàmbalee ko bisub ajuma tey jii taxawaay bi lan la. waaw taxawaay bi dañ ciy santaal yàlla rek quoi di ci santaan sëñ bi bu baax mais aussi il est à magnifier soxna yi bu baax a baax a baax. parce que euh, depuis bientôt ni nga ko waxee cinq ans ñoom ñu ngi koy euh, ñu koy ñu ngi koy ñu ngi koy fêté quoi ñu ngi koy fêté fii ci koñ bi ci même lieu bi et puis ñoom ñëpp ñu les mêmes participantes laay gisaat ñooy ñëwaat à part que am na ñu ci yokk waat aussi quoi mais aussi je veux dire que ñi koy initier ñoo koy initier ba léegi quoi te loolu lépp suñu borom mi ngi ciy may ndimbal quoi mais aussi man li ma ciy gën a frappé mooy que bon cohésion bi ñu àndal ak euh, góor ñi tamit dañ cee jàpp bu baax a baax a baax euh, il faudrait que ñu remercier leen quoi parce que aussi ñoom contribuer nañ ci bu baax a baax parce que euh, au delà que jigéen ñi ñoom ñooy nekk ci waañ yi di togg di joxe di def lépp mais góor ñi aussi laal nañ seen poche waa jàppale leen bu baax a baax a baax quoi parce que aussi seen i jabar la ñu seen i soxna la ñu seen i sœur la ñu bon seen i dëkkandoo la ñu bon loolu moom tamit dafa rafet quoi. maanaam daal mouridisme la ñuy xaw a symboliser foofu quoi maanaam bokk euh, bokkandoo lépp gisandoo lépp am même idéal maanaam euh, di bokk fi ñuy gisee di bokk ni ñuy wax man man loolu sax xaw na ma jaaxal parce que tey ànd jigéen ñi bari te bu demee ko ñu bari tey jigéen ñu ci bari danaan man dama wax ak diw waaye tey fii lu ko tàmbalee fii ba fële bopp ba genn tey ji ñoom ñëpp dañoo mànkoo nekk benn. ba ku ci nekk boo jug boo wax ak sa boo waxee ak sa morom keneen a keneen dana ko dégg parce que ñoom ñëpp dañoo mànkoo maanaam dund gi nga xam ne am na fi nii nii tey maanaam dund bi lan la parce que man lii dafa maa jaax parce que lii dafa jafe ci koñ mm, nañ ciy sant yàlla nag bu baax a baax quoi peut-être que c'est une chance hein, mais je sais que seen euh, seen liggéey la ñoom tamit quoi parce que quand tu les vois en d'autres circonstances ñuy def seen i nat bon loolu yëpp day waral ni tamit euh, bu 18 safar bi ñëwee day nekk un événement exceptionnel donc événement exceptionnel day laaj un comportement exceptionnel donc euh, di ci sant yàlla bu baax di leen ci gërëm aussi parce que euh, dafa nekk benn événement boo xam ni dañ ciy nekk suba ba ngoon doo ci dégg coow doo ci dégg ñaan ñu ñu ñiiroo ñu xiiroo wala ñu ŋaayoo ñoom ñëpp maanaam ñoom comme ni ma ko waxee sànq rek dañuy bokk benn même idéal bokk même esprit donc euh, dañuy symboliser aussi le mouridisme quoi booy xam ni mooy ñàkk jariñu di liggéeyal Serigne Touba. kooku nag kooku c'est un comment dirais-je un préalable au grand événement bi di ñëw muy euh, màggal gi du 18 safar bi bon foo gis à travers le Sénégal ñu ngi koy organiser bon mais kooku sant yàlla rek war liggéey sëñ Touba daal moo toll noonu quoi. li sëñ Touba tànkam amul tànk na tànk kese waaw ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax nag quoi loolu la naan jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf kon ñu ngi lay remercier bu baax yow tamit quoi pour ta couverture bi ngay def boo xam ni da ci ànd ak euh, vraiment beaucoup de professionnalisme yow ak sa frère Sam que je vois là-bas vraiment ñu ngi leen di remercier bu baax a baax quoi Salam TV donc yàlla na yàlla defal xéwal. yokk seen euh, mën-mën yokk seen seen kattan yokk seen i seen seen seen seen seen seen aura quoi euh, ngeen voilà voilà loolu yëpp man man maa leen ko souhaité parce que même man sax bëggoon naa bokk ci seen mouvement bi nga xam ni salaam la maanaam mooy jàmm waaw fu jàmm nekk nag ñëpp lañ faa war a bokk macha allah macha allah parce que tey ji boo xoolee tey ñun nekkoon nañ tey ci contrat mais contrat boobu ñu nekkoon tey dañ leen ñun duñu xëccoo ak yéen parce que yéen bu soxlaa rek contrat bu ci nekk mën na féete benn boot parce que bisu tey ji dañ ma fayoon dañ ma fayoon xaalis man leen comme que yéen a suñu devoir tam ci koñ bi parce que xool ñu xaalis parce que xaalis après day jeex mais dañu xool tey ànd bi nga xam ne mooy coloré mooy suba loolu moo waral tey suñu teewaay bi tey ñu di teewaay ko ci yéen comme baax na kon dernier li nga wax nii li nga mujjee wax nii mooy firndeel suñu euh, def couverture pour say jigéen pour ses frères pour ses pour ses kii kooku sant yàlla la quoi vraiment yàlla leen ko yàlla fay et ce n'est pas perdu c'est du gagné voilà c'est du alhamdulilah kontaan nañ tey jii foofu lañ koy jaaree yamale ko tey lii lañ leen indi li nga xamante ne mooy Allé Marème nga xamante ne mooy gëm tey lii moo fi amoon di leen jaajëfal di leen wax nag bi mooy suñu daje bu ngeen ñu séenaatee Touba la si kattanu suñu borom màggal ko si jàmm pare ko si jàmm ñibbi si waat si jàmm kenn du sëñ Cheikh Ahmadou Bamba jërë ngeen jëf yéen ñi ñuy siifal jàpp leen tax ngeen xam ne foofu la. yow mal jamal di ajuma toj nañ bëtub càmmoñ ba bis ba ja def ñu toj bëtub ndeyjoor ba muhammadun ababakar sadiq rayam wajar na waaju nekk yuuxu ray nañ ko wat ko sànni ci santaar ya taxañ jafal boole kook himmaarun Alioune Aïdara ma doonoon jàmbaar ja Abou Ousseynou wal yaakaar ja bañam yaray nañ ko ci réewim koofa ngir weddi yàlla gaañi rob foofa famille julee fajar la im jam fab jaasi ñaw bettu ko jam